dañuy sante yalla bañu Abdou Karim tagate ci ci jamm parce que lepp jamm la parce que bo xolé fi ci mbaw amul fuñu dugul, mais amuñu kar di histoire ak ñun yalla def sunu dernier meeting ñu genn dem Pikine mën na ni seytaane la ak politique parce que politique bo ci nekké day and ak ciow parce que lolu kessé la parce que lenn la rek Abdou Karim mo ñëkëti ak président de la république di Macky Sall lim ñu santone def nañ ko li ñu bëggoon jaru ñu doon rayenté

ba tax na am na yu bari yoo xam ne xëy na jàpp ne war naa mën a am feneen mais fii yàlla nañu mën nañ ciy musal ndax ñëpp ay bokk lañu te loolu ñu jëkk sóor d'abord avant ñu dem ci leen loolu mooy lay ñu def campagne apaisée xam ne kenn amul ak sa morom problème kenn ku nekk respecté sa moroom ca choix ba nga def moo tax campagne bi dégguloo ci benn coow yàlla suraal nañu ba ñu dugg ci campagne bi génn ci dugg ci vote yi ba génn ci te dégguloo ci benn incident loolu particularité commune du mel ni Mbao ak yeneen yoo xam ne mel na ni moom ci yeneen tout le Sénégal. commencé woon nañ ko ci bisimilahi rahmaani rahim yeggale kook alhamdulilahi rabil alamina mën naa wax ni violence yi dañ koy dénoncé ndax kenn bëggu ko woon ñu massawuñu ci gaañu waaye fii ci commune mbaaw mën naa ni vraiment la coalition Benno Bokk Yaakaar bi Abdou Karim Sall dirigé je crois que def nañu proximité campagne bu mucc ayib sans violence. waaw loolu de wax dëgg yàlla moom di sant yàlla rek bu baax a baax a baax. xam naa ne moom euh, na nga ko foogee woon jëmmu demoon na ba ba rythme xaw a bëri nii waaye jëmmu après mu dal waaye loolu nee na man amoon naa yaakaar ne war na cee mën a ñàkk waaw parce que nit euh, sëñ murid bi ñaan yi mu joxee woon nag ak ak ñun euh, gàttandoowul nañ ñu pour ñu dalal ko nit ñu dañ ko manqué foofu ci Touba waaw te ren moomu waroon naa mën a amee feneen lu bokkut ak ñoom ñi nga xam ne seen sëriñ moo wax ne na leen def lii ñoom waa foofu ñu ñu ñu ñu ñoom ñu di ko jëfee ci biir Touba loolu wax dëgg yàlla du leen rafetlu waaw waaye nag alhamdulilah sant yàlla bu baax waaw élection yi wax dëgg yàlla alhamdulilah macha allah dal na si benn fànn bi maanaam fànn boobu sax daal moom mooy li nga man moom si xaw a métti tuuti. waaw ñun de liñ ci jàngat mooy wax dëgg fa neex yàlla ñun moom suñu leader moom la paix rek lay la doon woote parce que biñ ñëwee fii keroog suñu dernière rencontre ak moom loolu la ñu njëkk a ñaax ba bi mu ubbee jotaay bi rek loolu la njëkk a wax bu ñu bu ñu kii violence. bu ñu def benn kii ku ñu provoqué na buñ ko buñ ko buñ ko topp daal waaw